mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi ci pëtataay bi muy Cheikh Ibrahima Mboup ñu ngi koy nuyu di ko ziara di ziara sunu soppee bopp muy Serigne Cheikh Mboup alquran di ziara sëñ daara yi teew ci groupe bi yëpp sëñ yu baax yu tedd yi nekk sunu gannaaw ñu nekk di ñaanal suñu nuyoo ak suñu ziyaara jot nañ ko kilifa dëkk bi mooy sunu maam Alxasan Sekk ak yéen kilifa yi daa ngi nuyu yaa si yu baax yi toog ak donga yi toog di ziyaar ñëpp. kon liñ ma santoon xaalis Mohamed Mboup Mohamed Mboup sëñ Daara moom moo ko mooy ñu waxtaan ci alquran karim di tànn benn topp mooy lan moo ñu war ci téere bu tedd bii di alquran nara taxaw nag ñetti topp li ñu war ci téere bi en tant ay nit li ñu war ci téere bi en tant que ay jullit ak liñ ci war en tant que ay ndonga daara mu ñetti war war yoo xamante ne bu ci nekk rek téere bi ci boppam leeral na ko comme leer nañu waaye pour lay tayal waxi bala maa commencé daa bëgg a def benn shahada waa aqimu shahadata lillah ndax donga bi mokkal siy seex mbuub mi andi na ko ci man andi na ko mu toog ni ma danaa bëgg nga seetal ma ko seex nag dama yàgg lool dina ñëw ci waaye jukkatal naa ko ci yu bëree bëree bëri bëri xale bi mokkal gi rafet na njàngin gi rafet na alxuraan gi na mu allah nekk lu nekk mu laaj ak ak xam da nga koy jox ma sëkk xool naa teel bi ba pare macha allah man lii day indias la sëñ Maxtaar naan loolu bu daaree kokki mooy suñu sëriñ day wax naan yiw bu ndaw amul yiw moom te yàlla yiw la rek. mu ni ki am benn ndongo daara toog di ko jàngal aw xam te yàlla tax ak ki yor téeméeri junni ndongo doy am fa yàlla ndax kenn ku nekk say nokki yaa ngi koy def ci lu yàlla gërëm waaw kon kon maa ngi ndokkeel dëgg dëgg ci sama biir xol maa ngi ndokkeel suñu Cheikh di ndokkeel Mouhamed bu dëgg ñëw ci lu gën a yaatu yàlla nag moom moo bind moom rek moo bind qul allah xaaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid te li fi ni lépp da ko teg ci yoon rabbuna alladi ata kulla cheyin xalqahu summa hada wan yoon moo yoonu ñu topp ko walillahi yasjudu sujud mooy mutlaq mutlaq lil qiyam topp yàlla ñëpp di ko topp fas yeeg mbaam yeeg planète yeeg sànq lañu lépp ci topp yàlla la ñuy dox waaye doon Adama daa bëgg ak toppam am nu mu mel ndax li mu def yow def ko ci kenn ci nit la yàlla def laa ma ñuy wax allamahul bayaan xalaqal ba allamahul bayaan mooy appareil boo xam ne naa génne vingt-huit lettres composé ay junni junni langue ñu doog am xel muy xalaat ñu doog am jëmm ci taxaw xamal mun tas ba ñu doog am làmmañ kii loxo biy jëf boo ne woon mbaam mi tàngal ma ndox ci ne bi na may ma mënu ko bu jëfee ba nag ba téyee kaas ndox bi nii am na la yàlla roob mooy liberté de choix bu la neexee ci kaas bi def ci aw yiw mooy boo naanee loolu kee ma boo neexee nga toon ci inna alay naa wa sabi an leen ci kanam yàlla nag ci mbaaxam ak ci ñeewanteem ak nekk ci moom moo tax mu wàccal mooy xam lu ko mooy téere bi yàlla wàcc yoon ci àlla Muhammad téere bi lottal ñëpp ñëpp kenn mënul andi lu mel ne moom Voltaire nee na du jullit l'islam am na benn téere kenn mënul andi lu mel ni moom ndax yokk ca arab wala wàññi ko ca wala soppi ko ca mënul nekk waroon jàng ab aaya léegi jëm ca rek sëriñ sëriñ sëriñ si sàbbal li kon loolu kii la téere boobu nag ah, moom jàng ko jaamu yàlla la téere boobu moom la ñu toxalee ci yonent bi mbooloo mbooloo jële ko ci mbooloo tamit ay mboolooy mbooloo ñoo koy kii téere boobu mooy téere boo xamante ne bi nii euh, euh, dafa lotteel ñëpp naa joxe benn exemple benn exemple rek Haaruna Rachid xam nga ci way way li ñu xamoon mooy day jeexe benn araf ñaan miim jeexe miim ya Hamza jeex Hamza ya taa jeex a taa ya waaye ci jamono yi jamono ji lislaam am na doole lool ci xam-xam ci xam-xam yi boobu la xam-xam yi am ci jamono Harouna Rachid daa fekk boobu asru al izdihaar izdihaar al xadaara islaamiya borom xam-xam yi ci wàllu luxa dañoo dem ba wane ni ñu mënee ci luxa gis kii def benn xasida mu jeexee ci ñaari bay li nga góor naa man mooy Ibnul Jinn al Ximsi dégg ak ak ak. rabbuna ala almaarif benn bayit jeexe ñaari arab astaghfirullaha li zanbi kullihi lamha qataltu nafsan bi xayri xillihi lamha nidal ghazali naiman fi dallihi lamha in tasafa layli walam usallihi lamha yéema lool soxna si di ko may si dégg ko daal daal di a fitna su ko a wax mu ni ko liir dara xoolal alxuraan karim waaw waaw xëy naa ilaa ummi Muusa an arji'ihi fa idaa xifti alayhi fa alqiihi fil yammi wala taxaafi wala taxzani innaa raadduuhu ilayki wa jaa'iluuhu minal mursaliin mu ne ñaari fi'lu maadin xifti ñaari diman euh, euh, ñaari fil mu daayo taxaafi taxsani ñaari fil mu amin ardiyihi alqihi ñaari ñaari ismu faayil jaahiluhu radjuhu ñaari ismu mafuul Moussa Mousso yi lim ñaari jaam ne ko doy na isoy baax na ko kon téere bi andi lu mel ni moom te loolu ci luxa la boo demoon ci ma ba maa dem nag même astronomie alxam lottal na fa gaay ya fa nekk ngir lan ngir waaye ni lii innahul xaq waaye ndax jëkkaw jàng muy neex ñi rek moo tax a tikkee moo tax a jóg moo tax a jóg moo ko tax a jóg di wax ijaas muy neex intellectuellement ngay bànneexu déedéet xam lu ko tax a jóg mooy gindi nit ki mu dund luy wax da ca am jàmm di dund ci àdduna ci jàmm la moo tax a jóg moo tax a jóg gindi yàlla nag xiiwal la am na ko yàlla jox ñu lànk wala alxuraan am na ko yàlla jox ñu lànk wa amma samuudu fa hadaynaahum fastahabbu al-'amya ala al-hudaa dañoo lànk man sant sant ma tam bi kooki kooki alxuraan kay ban rôle lay joué ba soo joué bi njumte la njumte la ca ca kii ba ndax téere yàlla bi du joué alxuraan laa yalaab laa yalaab doon ko dama yàqum bi dawlin ban ban rôle lay def ci dundug nit am ku ni nit daa yàpp yéebal baa ngi jiir baa ngi ci Cheikh Mboup alxuraan liggéey na lu rëy ci dundam ndax juddil la mais saabam Netanyahu laa alxuraan def ci moom ñoom ñaari benn lañu ndax yàlla dafa maandu boo commencé bàq discours bi nga njëkk a jot yàlla ñëpp lay wax yaa ayyuhan naas nit ñi ñëpp. ba mu am ñu nit yàlla dégg nañ ñoo lànk sami'naa wa na alxuraan dégg nañ lu wax ñu lànk yàlla dégg naa nu am ñu ne yàlla sami'naa wa ata'naa dégg nañ de nangu nañ ñooñu yàlla woon nañ ci alxuraan juróom-ñeent fukki yoon yaa ngi woon dina amoon juróom-ñeent fukki yoon seen naa Abdoulaye Mbassé fu ko déggee rek may ko may ko nopp ndigal la wala muy tere Cheikh bu mel ki ngi nangu la bëgg moom alxuraan liggéey ci moom moo da moo tax ku jullit nit ki en tant que nit da ngaa war a xam lu alxuraan da nga ko war xam lu boo xam la boo nag war caa gindeeku waaw euh, en tant que xam nga ni alxuraan yi ci yàlla la jógee xaq yàlla moo feeñu jullit nit nit ci téere bii lan moo la jox la njëkk a mooy ak ndax yàlla ndax yàlla waxi yàlla la kàddu yàlla la alkalaam wasfu ni mutakallim te kàddu poids kii wax la yore loolu moo tax waxoon nañ ni ni wax bi soo njëmteel alxuraan yonente bi lu gën xam ni tubaane benn arafu alxuraan wax na yonente bi ki ngëneelam xayrun min nabiyyin adnaani kon taqdis màggal alxuraan ka màggal gi ca kaw a kaw a kaw boo defaree di fa jàng jàng alxuraan du naafila de ratal du naafil yàlla wax na ci suuratu nam ni ca jeexantal ba innamaa umirtu ba muy lim digale war jox atlu wa an atlu alxuraan may jàng alxuraan karim kon jàng ko faqru maa tayassara al amru munaani wujub tënku woon nag waaye su bu ko xëy naam loo xam ne mi ngi da koy jàng alxuraan ibaadatan lillahi subhanahu wa taala loolu moom moo ma fàttal boo defaree al iltisaamu bi tënku ci alxuraan mooy jaxasoog moom mu doon sa pas-pas doon sa jikko doon sa doxalin doon sa dundin tënku gi nag ay niveau la ba sa njëkk mooy yow sa bopp laa tukallafu illaa nafsaka liggéeyal ci sa bopp ba sax sàpp alxuraan karim koo jëflanteel mu yëg ni kii nit ki yom daa sa alxuraan ndax lépp a baax boo paree sa njaboot bu ahlaka bi salaa wastabir ale foofu am na benn sew sew te yàlla wax ni njaboot gi na ngeen taxawu tax mu teg te mu ànd ak muñ ndax boo yóbbu xale bi ca daara ja muy jàngi ngeen Cheikh Mamadou Aline Gueye Abou Taha al Makki yow madani macha allah am na am na ku nekk sa wet ku bon seytaan bi naan la lan mooy avenir xale bi lan mooy avenir xale bi yaa nee na ba mokk mu jàll benn góor gu baax nee na nee na nee na ki jàppul ci loxol doomam di ko yóbbu ca daara ja mu jàngi alxuraan te yàlla tax yàlla gërëm na ko ngërëm loxo amee jëmul yóbbu lamb yàlla jigéen ñi fa tëdd ma gërëm li muy kon njaboot gi ma gi ñëwal ci jigéen ñaare ji wa am dina ci bénc bi waaye ne wala dëkku nag wala xam bu ñu réussir yooyu buñ buñ yuutoo àdduna kon yooyu foofu la ñuy jaar boo ca paree yow yow en tant que en tant que ko ab ndonga daara moom parce que yéene cee liggéey la ko njëkk war a mën a ko war a mokkal ndax ibnu abdul biri nee na awwalul ilmi xibsul quraan kay yoon mu njëkk ci ab donga daara jéego bu njëkk ci ci njàngal mooy mokk alxuraan karim te déggu ko nag mokk alxuraan karim da ko mokkoon saxaaba yi euh, na ñu ne juróom-ñaar am na fi ko ñaar docteur Sougou Sare nee na wallahi alxuraan ne saxaabatul kiraam yi nit ñi mane ba mun ñoo seen seen bënd ci ak mbaax benn ko la nekk loolu ñu mën a ci alxuraan bii ga ci njàng ak jëfe ga kon mokkal alxuraan ka moo rey ci yonente bi ñu baax ñëpp te saxaaba yi jiitu ci boo ca bëree xam-xam alxuraan nga géeju ca alxuraan ay xam-xam ñoo ko wër alxuraan ci boppam daa am ay xam-xam yu boppam ilmul makki wal madani ilmul naas wal mansuux ilmu tartiibul quraan ilmu arab daa am bëri xam-xam yooyu nga géeju ca xam-xam yee ni fiq ak ak usulam aqida taarix siira langu alxuraan tamit nga jekk ko maanaam daa am xam-xam yoo xam ne nii fokk nga jàng ko doog mën a xam ne téere bi la te mooy naxu mooy sarfu mooy balaaxa mooy mooy luga mooy mantiq mooy eh, ilmu luga ak ci aju yooyu tamit ab ab donga daara ko war a jàng ba pare nag li muy tëjee ab tadxiyatu fi sabilillah ab donga daara daa war a amul yow yow amoo amoo daraja amoo temps amoo alal amoo lenn ndax yow alxuraan dafa laa wan na moo tax boo ñëwee naan sëñ Moussa Diop la bokk daale yi waaw bu jigéen kuy toog mu ne ko lan mu ne ko ah man man ñëpp yi ma innal amra kullahu lillah lépp yàlla ni mos yëpp yi sax yàllaa ma moom bis bu ñu ko jógee yàlla waayal ci donga yii ku téye yëf yi macha allah kon kon kon moo tax waa yéen teg maa la xaas daxalu fuqaraa ila dunya wa kama daxalu minha xaraju bi ñu ñëw ànd mu ñu dara ndax bëgguñu dara ci àdduna bu di ko wut am na nga daal ba tam jë jë jëli na àdduna soxalu bëggu ci dara bu di ko wut àdduna kay moo lay fekk si yaa ngi daan am ko ñëwoon yow sëñ bi dama laa bëgg a tabaxal fii benn néeg nga ne ko def ko ba dongee si ma sax la génn àdduna fa laa fekk poos bi juróom fukki dërëm lañ ca fekk lu ñu yëkkat gis daara jee moom de miiraasuñu ko ndax gis ñu lu mu bàyyi lu mu mën a miiraas kon kon ab dogg daara pour nga doon ko foog nga seey ci alxuraan fi may tëjee mooy mooy ndénkaane loo xam ne bi a ko bokk waaye kii la gën a concerné Mouhamed Mboup a baax yaa ngi ci alxuraan kër an ishkur lii wala waaye day surtout Luqman sant ma man yàlla ak sa ñaari way jur a sukkur xam nga mooy lan yurdi al yàlla defal la xéewal nga xam ko def ci lam gërëm Mohamed bu santal yàlla bu baax sant suñu yàlla ba jëli sëñ bu Cheikh Mohamed Cheikh bu sama xarit la lool lool dañuy waxtaan nee na ma ma wax da mi ngi nii ba may ñaanal Mohamed boobu xamul ko yaayam may julli guddi di talal loxo di ko ñaan di ñaan yàlla doom yoo xam ne loolu soldat ci téere bi ñuy wax soldat ci l'islam di ko ñaan di woor mu daan woor ma wooree ba ngoon bu may ndogu may ñaan yàlla doom jox ma yow soldaat ci diine bi nee na ci laa nekk ba caag ma ni naa sabablu lii may ñaar ba wuti soxna suma mën a amal ci laa dox ba gis ba gis ba gis allah allahuma laa adul nga ñëw mu tuddal ki gën ci nit ñi ki gën ci nit ñi yàlla yoon ta Muhammad la ak jaam waaye fa mu ko teg tegu fa kenn ndax ci alxuraan bu ne illa an agnaahumullahu wa rasuluhu min fadli lu muy wane da ngay de proximité bi nga am ci moom mu tudd la ko ngir bëgg nga màgg mu jox la alxuraan ba nga mën ko taxawul ku bi la daara wàcce woon ak yow kon nag li ci des nag mooy góorgóorlu xam ne nag xam ne Mouhamed Mboup Mouhamed Mboup Cheikh sa noflaay jeex na yow amatul noflaay ndax ñaan bu nangoo noflaay jeex yoon ci Yàlla Moussa day ñaan mu xam yaa ne xad ujibat da'watukuma nangu naa léegi nag yéen a def fastaqima wala tattabi'anni sabila lazina amatoo sax du waa gerte kon góorgóorlu na doon ngay doon say xarit na doon ngay doon say wéttal na doon ngay doon say waxtaane kii mooy sa maam man dem naa seeti ko ca daaram kon sama xol tooy na waaw de ma ak dëgg mu jaaxaan te doo ngay wër am na benn dong nga boo xam ni jéego na ci biiram pour man doomam la bu ñu waxtaanee ma kii ab dong la nga dëkk Fuuta kii dongaam du tilim ndax bu tilim mu xam ko dongaam du feebar du feebar mu xam ko kon yow amul leen la jéggaani Cheikh Mouhamed Aliou Gueye Abou Taha almakawédi mi ngi nii sawet man ba macha allah naqayi taahir saafir day dem toog di root di root di sutti fii yaan yàlla jàppale la yaan yàlla taxaw la yaan yàlla aar la aar ñëpp walhamdulilahi rabbil wa shukran takbir jërëjëf sunu asalaamaaleykum mbokki jullit yi xam naa jël kàddu sax dafa mënta ñàkk waaye ku dégg Mamadou Mokhtar fi mu jaar te nga teewlu ko wallaahi dina la doy sëkk ak lu ko Mamadou Mokhtar yal na yàlla feer na la yal na yàlla feer na la ci jaay si dugub yëpp xam naa tey moom damay tënk rek ndax soxla yi bari na. ku ne ne ni Mamadou Mokhtar mii taam lu ci jox nit rek itteem itteem ci nit ka moo ko waral Mamadou Mokhtar yal na yàlla noonu di jaay seen i wujoon kon nag euh, ci kaddu mbuubeen ñu ngi yëkkati kaddu bi ci sunu turu kilifa Baye Cheikh Mbuub Baye Cheikhu ñun fu nu toog kaddoom la ñuy wax ndax mbuubeen noonu la ñuy doxee. bàyyi Cheikh yàlla yàlla yàggal suñu kanam te guddal ak fan di jaay seen i kon nag dama ne tey moo aaye bu daara aayee xel yëpp dina dem ci Baye Mor Fati wallaahi Baye Mor Fati ku ko xam xam daara man mii doomu ba mooy joxe li ma gën a miin ci li mu doon wax damaa dégg mu naan bàyyi si di saara kan maa ngi ba bàmmeel baa ngi rek kan maa ngi ba bàmmeel baa ngi rek kooku alxuraan moo gën a doomam waaye mu ni mu yombee ci jamono ji dafa bokkul ak ji dëkk ku ne xam ne daara ku fa am juróom-ñaari at war ngaa mën a mokkal waaye nag mokkalu ma waaye mokk naa nag kon ñuy sant yàlla bu baax Mamadou Mokhtar ñu ngi lay sant bu baax. daara yi nga xam ni nag mooy daara yi nga xam ne Baye Mor Faty jaar na leen ci ay doomam du ma ko lim ndax bu ma ko limee day jël temps waaye juróom-ñetti daara ci Thiénaba gii xam naa leen yoo xam ni sama baay dugal na fa doomam juróom-ñetti daara fii ci Thiénaba sama baay dugal na fa doomam tey jàppale borom daara yi ma jënd li nga xam ne mooy sama mag ñu dina ko daara ji daara ji mu njëkk a jànge mooy daara jonganeen eh, daara ji mu ji teg mooy daara Baye Massaer Niang daara ji ci mujj mooy daara Baye Talla Gueye kon kooku xam nga ni eh, waaye nag ba nga xamee ni ñëw na daara Baye Talla Gueye dafa daal di jilaat ñaari doomam wuutal ko muy Ousseynou Mbuub ak ak Modou Mati Mbuub ngir bañ daara ja doomam nekku fa mu wit ndax moom li ko gënoon a itteel mooy jàppali sëñ daara ndax boole yë booba yàlla na ko ko te bëggul lu dul daara waaye bu maam Mor yow mi nga xam ne historien nga bu nu ca kaw xam ne maam Mor Jimé Aminata ak maam Góora Aminata ña nga dëkkoon ndooj sëy ca njàmbur ba nuy départ di wuy di sëy Seydina Cheikh Amadou ca wooteem ba boobu ba ñu demee dañoo joxe seen bakkan nit ni diine na diine jóg rek wala ñu tëgg na diine wala ñu tëgg kon nag bisub tey fay na te la ñu bëggoon nag ñoom ñoom ñoo ñee la ñu bëggoon ñun ñii moom la ñu bëgg moo tax bi ñuy wax naan Samba Sadio ah euh, kii képp yi ñoo ko kii tubaab yee ku xool lii xam ne résultat am na ana ñooñu kenn déggatu leen ñuy sant yàlla bu baax ndax ku ci le xam na ni makka mooy gën ji dëkk ndax la fa kaaba ga ne waaye sallallahu alayhi wa sallam mooy gën ji mbindeef waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin ndax ñun am nañu ñoo xam Makka mooy ngën ji dëkk salaahu salaam mooy ngën ji mbindéef moo tax am nañu ñoo xam ni joxuñu ñu woon kenn ku dul salaahu salaam boo ko tàmbalee ca ca ca naar yi Al-Bushiri yi mu ngi wax ni Al-Bushiri yi mi ngi wax ni eh, eh, innama masalu sifaatika li naasi innama masalu sifaatika li naasi kama inna maa masoon sifaatika linnaasi yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu may misaal saw melo inna maa masoon sifaatika linnaasi inna ma ah inna maa masoon nijaamu inna maa masoon sifaaw inna maa masoon sifaaw linnaasi kamaa masoon nujoomu nujoomu mooy biddiw almaaru cim ndox nga taaj sa di xool biddiw ba ca di ko xool ci ndox mi noonu nga soree Sénégal ko nga dikk fii ci Sénégal Cheikhul Khadim yebal naa la ci raay yi nee na booy lim ci baax bu ci gisee bu bu ci boole yoon ci yàlla Muhammad ñu ne ko lu tax mu ne kii gënal ñooy gënal kenn du ko dugal ci groupe ba nga dugg fii ci Thiénaba sama taru sama turandoo mosu la joxañ ba ko mosu la joxañ kenn ku dul salaata moo tax mu gënal ñëpp. fii ci Thiénaba toog nañu fi am ku ko ah, ku xam nga buñ mësaa julli àjjuma ba pare conférence daan doon sëriñ bi day taxaw wax ba nga xam ni ñun ñëpp dañu koy xib ba àjjuma ji génn si loolu de waare gi daf lay toog keroog maa ngi gis gan bu dikk di ko joxañ di ko tàgg di ko tàgg di ko tàgg ba ñu naan tey jii ci Ibrahima dina ko jox l'engrais ndax l'engrais boobu mooy parce bi gënoon a ci xam nga lu lu lu ko tontu da koy daraja jenn la woon ñun teel a moom it yóbbu na ko salaam salaam noonu la ñuy àndeeg say taalibe yal na yàlla fayal ñu ko te kat ci daal ma fekk maa ngi lay xamal lenn ñun dong ngay xam nañu mooy kan ndax ku bëggoon alxuraan la ba bu amaat gan boo xam ni dafay jóge ci nguur gi alxuraan la koy teeroo. Mohamed Gueye mi xam na ci dara ma jimbi sama doom da koy daan boobu lu tuuti la da koy taxawal ci taabal mu jàng alxuraan ni ko ñun lii la am kon nag ñun alxuraan mooy suñu lépp ah, bi fi may daaneele nag mooy sant sama njaboot ndax war na nag ki nga xam ni mooy sunu bàyyi moo faati mbuub li mu joxe ay doomam yëpp daara néewul góor rek moo war a jàng góor ak jigéen la daan joxe te booba loolu bëriwul soo mag ndey aji ndey bu bind na leetar jox ma ko ma bind ko leetar boo xam nga ni kon jàng na waaye sama baay moo fàtti bu fi jógee ma noon Ibrahima sàmm mënul ginnaawam man kanam weddi naaw képp ko defal sa kanam yàlla dina defal sa ginnaaw te yàlla defar na ginnaawam ndax ku gis tey ay sëtam lii ñu taxawal kenn képp ku fi taxawal daara ci Mbujeen na nga ko gërëmee sama rakk ji di Cheikh Cheikh Cheikh Alxuraan man nag Cheikh Alxuraan jooju ah yéen ñu koy wax tur bu ko dab waaye tur yi nga xam ne sa bopp da ko koo tuddee woon muy Cheikh Ahmad Tidiane di sëriñam du soppeem ba. sañul ma koo wax leneen dul Cheikh Tidiane waaye nag lii ko dal itam nag wax dëgg yàlla lu mérité la sant yàlla bu baax ki may daanee la mooy Cheikh jërëjëf ndax njàng ak yar day ànd damaa gis dongo yi ku dikk bu solee mbaxanaam bu ko bu ko nii nga jubbanti ko daat ko loolu dafa am jàngale mu ci am ak gis nga gis nga kuy sol mbaxanaam di ko yeggal nii ku bëgg àddina la bëgg àddina doo ko tax mu di ko def képp képp koo xam ne koy teg ci kanam nii ku koy teg ci kanam nii maam moor jàppoon ne amul ker képp koo xam ne nag ñu koy teg ci ndor si loo koy lebal na nga koo xam xam nga mbaxana mbaxana maam moom dañ koy dañ koy daal ci digg bopp nga xam ne kii ku dëgg la moo tax nga def seen seer waaw ah, ah, kon ah. nag su ma daaneele ah boo xam ne jigéen baax na li may daanale maam moom mooy soxna Seynabou Thioune mënuma mënuma mënuma toog ci ay jataay di tuuma ko. déglu leen déglu leen. ndax dafa nan loo xam ne ñun waa Kër Baye Mor Faty yóbbu na turu Kër Baye Mor Faty woo xam ni wax dëgg yàlla bu mu koy bu sori na te lépp di alxuraan soxna Seynabou yàlla yàlla fayal na ah jox ma jox ma sama mbuus mii ma yor foofu laay daaneel génneel ma Cheikh bi ma déggee ni Maam Mor bi ma déggee ni Oustaz de de Oustaz Muxtar Amadou Muxtar mi ngi fi waaj a ñëw la préparé kii cadeau bi pour moom. takbir. ñetti mbooloo yooyu moo ko moom. wallaay wallaay. lii nga xam ni. grand mbubb la ak mbaxanaam ak boo xam ne diggante Ibou Diagne ak sama baay oh. ak sama mag ja ah. Ah, sama mag ja ah, ma ji bi. man ci bu yàgg ma bu marché la mu jaar ma ji man maa ko xam ci bu jàng kuñ ku sàmm colère la te kat colère sama turoon de nee na woon bu doonum yàq dama koy seet ba sama bëñ de sama bëñ de ci bu jàng yàlla yàlla fayal ko Cheikh jërëjëf dama leen di seedeel ni leen rek kii di Cheikh fépp fu mu tegoon baam teg na loolu moom mën naa leen ko seede te kat mbag moo xam ni du ma wax samay at ndax kon du ma mën a kii waaye nag mën loo xam ni ab taawam soixante onze la juddu taawam am juróom fukki at ak ñett boo xam ngeen ni mag la kon lu mu waxati rek ah, moom cee xalaat tëraayam ëllëg waaw waaw waaye na ngeen ñu ñaanal a na rafet di jaay Seydou Diop ñu ngi sant ñëpp ñu ngi jégalu ñëpp ñu ngi jégal ñëpp yal na yàlla boole ñu jégal ah dafa am nag yoo xam ni maa ngi koy wax waaye loolu sama mbirum bopp la dama am ca sama kër benn projet boo xam ni ay lavage. yu maanaam ay machine yu fóot dafa am sew sew bu ci am gis nga machine buy fóot képp ko am foo set ak laab dafa bokkul da moo tax na seen xel daal yéen ci jigéen ci loolu képp ku ko andi sam fóot jàppal ne machine dañ koy xayma ba pare doo doo ñu ko fóot bii. kon nag maam Mor nga dimbali ma ndax Alpha Sarr mii nga xam ni ah maa ngi def publicité boobu. bu bu bu ma jaarloo ca kees bu ma jaarloo ca kees jërëjëf. mbokk yi. ñun lii fi mu dugg dañoo saf. bala maa wax li ma bëgg a wax. rawoon inspecteur Ibrahima Cissé amu Fatick kay fii. nga jël kado sunu soppe bee di oustaz Ahmadou Makhtar Diop nga joxoñ ko sunu kado bi inspecteur kay inspecteur Cissé ñëwal fii kii c'est un inspecteur de l'enseignement di doomu ci rabam mu ñëw fii di arabisant di imam dañ koy jox mbub mi mu joxoñ ko kay fii oustaz mu joxoñ ñu ko mu sunu topp bi di oustaz Ahmadou Makhtar Diop macha allah kon nga estati leen waaye gaa dafa doon waaye lii estati na def estati estati leen nee na ba ko engagé ana borom appareil yi dégg estati leen ñu waaye estati leen ñu waay ah soo doon xayma estati kañ waaw kay waaye estati ko ñu doon du ko doon estati ndax ko booy rek ñuy mbaal <laughs> bu ko defee incha allah dañuy jël karo bi nga xam ni sunu. Vamos a ver, Mbaye Xasan Seck waaye di ci toftal euh, sunu maam Cheikh Amadou Seck di imam ratib waaye di ci toftal sunu maam Alxasan Ñaan di chef de village ba léegi ci nuyoo boobu ñu ngi koy jël di ko teg suñu loxo maam di xalifa Mbuubeen sunu maam Baye Cheikh Talla Thiané Mbuub waaye di ko teg loxo sunu maam Ibrahima boobu nga xamante ni mooy xalifa kër gi mu wàcceel ñu ko ci njaboot gi yëpp euh, ñu ngi jégalu nag bu baax ci kàddu yi ñuy yëkkati sunu kanamu kilifa yi waaye lu mot a ñàkk la ndax euh, kilifa yi ñu ko sant euh, waaye itamit di am bu baax ak kontante bu yaatoo yaatu ci wuusi bi nga xam ni wuusi ngeen ko daara ji. xam naa ni kaddu yi day doon ñaari yi kaddu rek bi jëkk mooy wax li jëm ci daara ji ak fi daara ji jëm waaye kaddu bi ci topp tamit day doon kaddu sant ak ñaan kon daara ji ñu ngi ko tàmbali le 11 mai 2022 ci ndigalu sunu baay Cheikh Tidiane Mboup waaye ginnaaw bu mu ci amee ndigalu ay waajuram ak seeni ñaan kon daara jooju ñu ngi koy juppee ñu ngi koy tuddee sunu di ko ñaan yàlla yàlla na ko yàlla dooli njéggal ak yërmande mu tëdd ndax wax dëgg yàlla ku ko xam xam ko ci bëggoon lu baax doon ko nungoo liggéey waaye doonoon ko sonn ci ak njabootam waaye doonoon tamit ndax bëgg boobu mu bëgg alxuraan bokk na ci li waral lay tey kon ci ngay ñaanal ak jéggal ak yërmande yàlla na ko suñu borom bi defal daara ji itamit euh, euh, ci programme daara ji ba léegi am na externat ak internat am na tamit ñuy yendu ci daara ji euh, di jël góor di jël jigéen daara ji dañuy jàngale alquran karim daara ji dañuy yar te mooy yaru lislaam euh, bokk na ci li nga xamante ni euh, daara ji mu ngi koy liggéey li ñu fi gis nii tey bokk na ci ci li daara ji liggéey waaye tamit dañ koy tënk rek ci gàttal ndax li des ci waxtu bi bëreetut daara ji am na ay projet daara ji am na ay mébét yu yaatoo yaatu yoo xamante ni lépp luy jëmale daal ji kanam wala li avancé daal di kanam ñu ngi ci di liggéey waaye ku ne xam na ni daara ak ñu bindoo ak yi projet am financement la laaj donte nag moom duñ taxaw di yalwaanal daara ji kenn waaye dañ naan képp koo xamante ni waa daara nga waa bëgg ngaa liggéeyal daara wala bëgg nga def sa li la yàlla dénk ci yoonu yàlla danaa la ñëwal ibbi na Lëbbu waaw ndax euh, am nan ay mbébét am na ay projet daara ji kon ku dégg wax ji rek yaakaar naa di nga xam fan jëm muy képp koo xamante ba nga def sa am-am ci yoonu yàlla comme ni ko sama maam maam roxee sànq tëdd muy dox la ñu ngi koy wax ñëpp koo xamante ni ba nga def ci daara ji te yàlla tax da jël numéro yi nga xamante ni mooy numéro daara ji. bëggoon nañ ko gën a yaatal nag mais gis nañ waxtu bi jot muy guddi moo tax ñu bokkoo tënk ci lu gàtt rek ku jël numéro daara yi tamit boo amee lenn ci ay renseignement yoo xamante ni bu nga ko bi ci daara ji boo woowee directeur daara yi na ci leeral leeral yu am solo kon numéro bi di 77 454 17 56 77 454 17 56 numéro bi di topp muy 77 302 43 77 302 43 09 kon lii dañ amoon ci ay kàddu yoo xamante ni bëgg nañ koo leeral ci daara ji rek ci lu ci tënk waaw xam naa kàddu gi topp mooy dañuy kàddu cant lay doon kàddu cant yooyu ñu ngi jiital suñu bàyyi Cheikh Diagne bi mu muy toog di ko cant cant boo xamante ni am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem comme ni ko suñu ustaas Amadou Mokhtar waxee sànq bi mu demee ba commencé xàmmee la ñuy faral di wax di dëkkal suñu nokk naan ñu li may ñaan yàlla li ma bëgg sama njaboot boobu xamuma seen yaay kon loolu yaakaar naa ni waajal nañu ba fa waajal yam kon ñu ñoo ko desal ak cant ak njukkeel loolu mu ñu defal ñu góorgóor suñu kenn kàttan ba fayal foofu kon nag ñu ngi wax ñëpp rek nañu ko ñaanalal si mu bëgg a yegg xam na ko yàlla na ko yàlla defal fi mu bëgg daara ji yegg xam na ko yàlla na ko yàlla ko sàcc mbooloo ñëpp ñu ñaanal ñu ko waaye tamit di sant Serigne Diarra yëpp Serigne Diarra bi teew yëpp gis nañ ñu ngi sant ñëpp di sant Serigne Diarra yi di sant yaayu daara yi di sant tamit Seyda yi di sant tamit sunu yaay Zeynabou Thioune ndax ndongo bi mokkal tey di Adja ci moom la dooree ci la dooree ba tollu xoolal maraw ci lay doog ci daara yi kon. moom amal nañ ko ak cant ak njukkee bu baax ñu koy sant ngeen ñaanalal ñu ko yàlla ñu am fay yàlla nañ ko yàlla fay baatu fay na xëy na gàtt na loolu waaye la ëmb bari na kon yàlla ñu am fay yàlla na ko yàlla fay waaye ñu ngi noonu tamit nañu ñaanal suñu sëriñ jaar yi toog di ci jiital Oustaz Amadou Makhtar Diop ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax ndax jaar nañ ci jaar nañ ci ay loxo am def ci ñun ñu ngi noonu tamit di sant Oustaz Mamadou Diop ndax jaar nañ ci ay loxoom tamit mu am def ci ñun di sant tamit Serigne Diarra Mouhamed Ali Gueye ñu ngi koy sant ndax jaar nañ ci am ci loxoom mu am def ci ñun di sant tamit Oustaz Serif Konaté nga xamante ni ci ak loxoom nan moo koy alquranul karim kon moom tamit ñu koy sant di ko jaajëfal bu baax ñoom ñëpp ñu fi tudd nii te leen bàyyi ak yàlla mi am fay yal nañu yàlla fay ñu ngi sant tamit parents d'élèves yi parents d'élèves yi nga xamante ni ñoom la fi seen njaboot nekk ci daara ji nga xamante ni xëy na bu ñu daara toog ni dañoo bëgg a jàngale te gisuñu kenn tamit jàpp naa ne du sotti waaye seen kóolute am kóolute ci daara ji bay ñu ñu ay xale ñu ciy góorgóorlu suñu kenn kattan ñooñu jaar ñu sant leen kon ñu ngi sant di leen gërëm ñoom ñëpp diiraa bi jàppee conférence bi diir bu gàtt la mu dul un mois waaye yàlla xam na ni ñoom parents d'élèves yi seen diir fexe nañu ba jël ab somme boo xamante ni donte ñoom parents d'élèves bëriwul mais góorgóorlu na ba jël somme boo xamante ni fàtte na lu bëree bëri bëri bëri ci conférence yàlla xam na ko ñoom tamit ñu leen sant di leen gërëm yàlla ñu am seen fay yàlla na leen yàlla fay. di sant tamit mbooloo bu fi teew yëpp ñu ngi leen sant gis nañ ñëpp dañuy bëgg dañuy bañ a lim du jum waaye gis nañ ñëpp seen taxawaay ñu def ci kaw gis nañ leen ñu def ci suuf gis na leen ñëpp rek ñu leen di di leen gërëm woote ñu wusi la dafa neex te gis nañu ñëpp wusi nañ kon ñu ngi leen sant di leen gërëm yàlla ñu am seen fay yàlla leen yàlla fay xam naa dañuy gàttal rek ndax guddi na yéen yéemale foofu suñu kàddu yoo xam ne réeru ila islaah ma stataat wa ma tawfiq illa billah wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان

seen jàngale di wax iqra yi min qawlihi taala baad audu billahi min alcheytan arrajim إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل الصلاة sadaqallaahu al-aziim yàlla barkeel yàlla barkeel wax dëgg yàlla xëy na ñi teew mënuñoo xam waaye xale bi papam muy Sëriñ Daara Muhammad inan ko ba ci man ma seen ko baqara ba mu ne dinati wan naat xam naa ñoo ngi jiital suñu nuyoo ci mbokki sëriñ daara yi nga xam ne ñoom lañu fi fekk ndax li arab di wax rek ne inna tuyura ala amsaaliha taqa picc mu naaw rek ñu bokkal giir fa la jëm kon ñoo ngi jiital suñu nuyoo ci ñooñu sëriñ daara yi di nuyu bu baax nag sëñ Cheikh mbooj ma sëñ Cheikh Mbuub ñun xam naa duñu ñu guddal waaye daal ay kàddu cant rek lañuy la indi ndax dafa mel ni jotaay bi xat na lool ibaadaat yépp nag daa am benn ibaada goo xam ni yàlla daf caa digee dool ndool lent muy ashukru moo tax kon dañuy sant rek lañ shakartum la azidannakum lii ñu jot a am ci ñu mokkal suñu santee suñu borom dinañ ci defal lu gën a kawe suñu jot kon duñu guddal ndax dafa mel ni jotaay bi dafa xat waaye daal lii ñu mën a wax rek mooy ñun ñëpp bégg nañu kàddu yi nga xam ni moom la doon taatan léegi ci góor gi sant Dieng e kàddu yu daw yaram yu yërëmtalu yoo xam ni ñun ñu ko doon seede dugg na ci suñu xool te lu mën nañu imaamu Shafii da xam ne moom lu mu doon wax lu mu tibbee ci xolam la ndax imaamu Shafii da doon wax naan gars yi dañ ko doon laaj naan ko lu tax bu ñu déggee wax ci keneen du ñu jooy waaye bu ñu ko déggee ci yow ñu jooy mu ne leen inna alkalaama ida xaraja min alqalbi yasilu ila alqalb wa ida xaraja min allisaani laa yakaadu yatajaawazu alazan wax su fekkee ni ci xol la jóge ci ay xol rek la jëm waaye bu jógee ci làmbiñ du weesu ay nopp kon ñoo ngi sant bu baax di jaajëfal sëriñ daara yi amuñu seen fay kon nag ñoo ngi leen di ñaanal fi ñu bëgg yegg ci alquran yàlla nañ ci yàlla defal lu kawe seen jot di jaayi Seydou sallallahu alayhi wa sallam li ma ci doole rek mooy la Seexul Xadim wax ci njàngum alquran ndax ku nekk xam na ni mokkal alquran moom cër la bu rëy ci yàlla ndax yàlla digee na ci ràmm ëllëg waaye Seexul Xadim moom dafa wax ni. ki nga xam ni waxay su may basmilu sabiyu yuxfar lahu wa li walidayhi wa liman yuallima saa yu jëlee àll teg ko ci lupp xale bi rek jéggal nañu ko jéggal ay waajuram jéggal ñu koy ñi ko ñi nga xam ne ñoo ko doon jàngal kon loolu jar na lu ëpp lii yàlla na leen yàlla defal tawfiq wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mais ko commencé alquran moo koy jox doomam doomam sëtam léppam léppam macha allah ci kanamu sëñ Cheikh. waaw sëñ Cheikh bi damaa bëgg na laaj ci moom tuuti. sëñ Cheikh nee dafa bëgg a témoin ci moom tuuti. macha allah. Mm. asalaamaaleykum waaw kër rek. waaw waxal waxal mu ngi lay. Ah, damaa bëgg nga wax. baax bisimilah. waaw mii. doom la doom la. jëkkër la jëkkër la lépp la lépp la macha allah macha allah dañ koy ñaanal yàlla dañ koy ñaanal yàlla yàlla may ko wér yàlla may ko wér may ko gudd fan may ko gudd fan ba mu fekk lépp njabootam ba mu fekk lépp njabootam ci barke alquran ci barke alquran dañoo jël suñu rakk jox ko dañoo jël suñu rakk jox ko waaye macha allah waaye macha allah musuñoo kolaame ak moom déedéet xanaa jël ko dañ ko xanaa jël ko boot ko boot ko rogganti ko rogganti ko macha allah macha allah waaye ndey binta rakkam day day dafa nekk rakk ju neex a rakkoo nekk rakku ju neex a rakkoo. macha allah mu yaru lool mu yaru lool yaru lool. yaru yaru lool am dal am dal am teggin am teggin macha allah man ko lii mënta ñàkk ci moom mu ni ko lii mënta ñàkk ci mënta ñàkk ci moom dañ koy ñaanal kon dañ ajaa cumbe mi ajaa cumbe mi ñu koy muur muy sëy waaye lépp soxna Zeynab te yaay ko jox Cuun ak njabootam gépp barakallah jërëjëf walaay ndeysaan sëñ Cheikh eh, sëñ Cheikh nee na jox nga ko démb tey doo ko ñëw ndax li nga def ci moom ba mu àgg fii loolu romb na teraangay fii waaye fële lay dal soxna si tamit nee na soxna Zeynab nee na kontaan na bég na bi gi ñaan yàlla yàlla def tawfiix léegi nag aajo yépp incha bismillaahi rahmaani rahiim